ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك lii man lañ ciy jiital lu ma leen waxal neex na leen lu ma leen defal neex na leen man mbootaayu amindoo ànd suqali ngént mënuma leen a fay wutiwu leen beneen géwal xooliwu leen dara lu ma leen defal ci àdduna neex na leen du wax ji fooree kontaan ngeen du wax ji gàttee kontaan ngeen du neexee kontaan ngeen du naqaree kontaan ngeen yàlla na ngeen gudd fan sunu ànd bi yàlla nañ ko ànd ba ci sunuy goro ak sunuy doom yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn manqué le yàlla nañ ko def at yu bëri yu ànd ak jàmm ci barke Nabil Moustapha ñi ngi gërëm mu yaax Mass Diop seex Ndoy ak képp ku nekk ngent ku ñëwagul ak ku ñëw ndax du sëñ bi xasee ba commencé dootu nu mën a dagg di gërëm kenn moo tax dañuy boole lépp gërëm ko ñi ñëwagul ak ñi ñëw ñëpp ñu ngi leen di gërëm Ami Ndoye nee na kontaan na ci yéen ñëpp nee na mënu leen a fay nee na yéen a ko jiital ca fakkatalu leen ko nee na yéen a ko bëgg lu mu leen def neex na lu mu leen wax loo neex na leen lu mu leen def loo neex na leen nee na yal na leen yàlla fay mënu leen a fay waaye yal na leen yàlla fay ci barke yeneen bi waaye ñi ngi jëm nag ci Pape Doumbia Ami Ndoye damaa yónni ci moom nee na Pape Doumbia Ami Ndoye nee na yàlla mooy boole ay nit Ami Ndoye nee na moom moo la bëgg xamul lu tax mu bëgg la nee yàlla mooy boole ay nit yàlla moo leen boole ca pam nag la nga neex a bëgg ndax koo bokk rek wala koo àndal gar sa bakkan koo àndal li nga ko jooju nuy wax waaye koo àndal dimbali nga ko koo bokkal gar sa bakkan ñu ngi lay ñaanal sa tele yii ak sa rajo yàlla na nekk ay rajo rajo du koy dégg fépp ci àdduna ci barke yeneen bi ba pare nag nga jël ci sama soppe sama xarit bii daal lekk olof ca léegi français lay laaj muy marisaar kon tubaarkàlla loolu doo nga cere ji yokk nga ñeex mi kon yal na yàlla guddal sa fan kontaan nanu jërëjëf macha allah ndooy yow kenn du yow sama waa ji xa dama ngi ci gàccee ngi ci amit ndooy dooy dem yóbbu ma loo am wax ma ko loo am may ma ci tubaarkàlla ñi ngi ñi ngi gërëm mas jóob ñi ngi gërëm maas jóob ak délégation bi mu àndal ak képp ku mu yebal ak ku ñëw ak ku ñëwagul mas Diop naw nan la ki dem ba nga ñëwee ca sunu koñ ñu waxati la sunu lii nga defati si li nga ci man lépp Cheikh Ndoye sama doom ñu ngi lay gërëm kontaan nan ci yow kenn mënu laa fay leen yàlla jàppale ci barke yeneen bi koñ bi mag ñi ndaw ñi kilifa yi borom kër yi sunu boroom kër yi ne bàyyi ba nu mën a ñëw def lii ndax du nu teye woon du nu mën a ñëw ñu ngi leen di jéggulu guddee gi ak tàggoo gu du dakk gi nee na baay bu mii amindooy nee mi ngi lay gërëm nee na ak ñi nga àndal yéen ñëpp nee na du sañoon day lim kenn par kenn waaye du tuddee kenn rek dugal na ci ñëpp nee na baaray mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp nee na tubaarkàlla kontaan na ci waa Njaasaan yéen rek la bëgg amindooy du sañoon lu xew Njaasaan day def ay otoom بالله لو فوا ينغوتو دوكاي ديف ايتيم ديف كو دينيم كون دوغن ديفي ني ساغال كو سيغيل نين كو كونتان نان دي باركي سيغ بابو كاسي كونتان نانو جيرهجف واخ جي ولا غاتنا اما دولي باخنا كون والسلام مي خليفه العام لطريقه القادريه البكائيه المختاريه البرعاميه نيو لين سي تورم اك تورو waaye nuyu leen ci turu mbooleem xalif généraux yi yàlla nañ fi yàgg lool na nañu yàgg taxawu diine ji ci darajay rasulullah di nuyu imaamu koñ bi nuyu mbooleem ayimma yi nuyu mbooleem asatis yi nuyu meeru koñ bi waaye nuyu meeru dëkk bi balaa dara xew yonent moo ne dee leen wàcce nit ñi délégation bi mu àndal di ko teg ci loxo yàgg baax sunu soppe moom ak euh, sekk ndaanaan nga xam ni yàgg nañu seq ay kóllëre te booba gise bi du am ak sunu jigéen bi bokk ci mbootaay gi moom it te sant Saar waaye di liggéey ci prestige di nuyu waa prestige yëpp di leen kontaane waaye nag nuyu waa ànd suqali ngent ci turu seen présidente soxna Ami Ndoye di sama sœur tey ñëwuma fi en tant que jàngkat déedéet rakk ju wuy si magam la kii di ñëw sama xarit la Maodo Seydi fu may jàngee rek di ngeen ko gis Thiès la nekk fekk na ma ba Grand Théâtre keroog ba mu ñëwee Grand Théâtre dama ni ko nañ ko yéegal ci kaw seen bi ba ñu xam ni Maodo suma xarit la bëgg yëg moo koy fay tabaarakallah Serigne Mouhamed Ndiéguène maa ngi lay ziar moom it sama soppe bi di di bég lool ami ndoy man ak rakkam Pape Dieng tey jii Pape Dieng ma nga ci Arabie Saoudite mais ñoo doon bokk benn néeg bu ñuy tëdd ñoo jàngandoo seem Ababacar si ndax nag at mu jot seeni jàng ma leen koy jàngal mu am sax histoire boo am solo pas-pas dafa am solo su ma mësaan di wax ni ku bëgg a dem màkk jógal taxaw ni ma man la boo Pape Dieng mi ngi dawal bus mu ni day jóg taxaw daat ni su fekkee li bu Diop di wax dëgg la nii may dawale bus senegal yàlla naa koy dawale Màkka bus léegi diggante Màkka ak Jidda lay daw <laughs> loolu cofeel du réer cofeel du réer kon nag tey sa rakk moo la fekk si amul benn protocole bu fi kenn nekkul woon ma ñëw nga ni ma defe ko ci biir saal bi ma toog def ko fa te man duma wax lu ma gëmul koo xamul noo koy def nam la defa tax te kóllëre moo am solo nii ngeen nuróolee yàlla na seeni xol nuroo noonu maa ngi leen di ziyaar maa ngi leen di ndokkeel maa ngi nuyu suma mbokk taalibe Cheikh na Cheikh Sadbu maa ngi lay ziyaare yow itam di la wàcce ci sa wàccuwaay di wax ni boloonu bëgg benn bëgg nañ la fukkam ndax bëgg yëg moo koy fay dafa am benn jigéen bu bëgg yàlla ba ni ko léegi ragalatuma sax safara ni ko bu dee ajjana la tëjal sa ajjana ni ko dama la bëgg rek ngir yaay ki jara bëgg dama la bëgg ngir yaay ki jara bëgg kooku moo tudd rabiatul adawi mu ni yenn saay nga bëgg ku bëgg lu wul daal ni sama waa ji daal maa ko bëgg waaye da waaru mu ni yàlla nag benn bi sama mbëggeelu bopp la maa la ko bëgg bi ci des mooy maa la bëgg ndax da ngaa bëggu ni ko uhibbuka hubbayni hubbul hawa wa hubban li naka alun li dhaka nii ngeen nuróolee ci bisu 8 mars journée de la femme man pour man bis yëpp jigéen ñi ñoo ko moom alquran ba mu jeex kenn déggu ci suratu rijal yéen rek la yàlla beral loxo defal leen suratu nisa kon nag maa ngi ñaan kenn ku nekk nga dendal nga jox ko loxo ni ko baal ma àq te muy dëgg ci yow yal na yàlla dolli seen teraanga yal na yàlla jubale na yàlla sàmm leen maa ngi nuyu sëriñ Abdullahi Kunta maa ngi nuyu eh, Baye Yahya Kunta moom it fa tabarakallahu suma sëriñ yooyu toujours du ñu affiché wu mais fu ma leen romb rek sama gis di ndokkeel nag ndax la muy xat-xat keroog sama bis ba yabal ngeen une très forte délégation ñu ñëw représenté leen soxna mi ndoy jiite ko euh, loolu day wane ni man ak yéen nekkatul jàngkat ak ku muy jàngal ay mbokk lañu bis boobu nag dindi tuuma rek moo ma ci dugaloon bi may jël Grand Théâtre 2013 booba kenn xalaatu ko ñu ni ma 1800 place la ma ni waaw daa am lu may weddi si dañoo defe ni ñun ci tànt yi rek la ñuy yem loolu tubaab di tuddee avoir son public ma bëggoon a wane ni ñiy tagg yonent bi on a notre public bi ma ko defee juróom-ñaari at ba mu ubbi nag ñëpp di ko def ma ñëw ni Serigne Ndiassane man mi la tàggu woon bis yóbbu ko biir ndakaaru def ko juróom yu teg ñaar ci at sa barke sëñ bi bis boobu laa ñëwaat ren ñaan ci sa barke sampoom te dootu génn Ndiassane fekk maa ngi dund sëñ bi ma def ce qu'on appelle retour à la source looloo tax ma indi ko Ndiassane maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm moom ak guddi Cheikh bu sama guddi turandoo ñetti fan lañu rawante démb moo doon guddi Cheikh bu te foogoon naa ni seen bis bi guddi Cheikh bu lay tombeel te dem naa pour wane preuve nee naa baara bu tombee guddi Cheikh bu damay ñëw defal ko ko ba pare dem def ko kon nag fi ma toll mooy sama sœur nga balaa ma fay jóge yàlla na ñëpp bég balaa ma fa jóge yàlla na ñëpp bég sonn na waaye yaa ñu ci doy ku ko sàggane da nga xamul liñ la dégg mais Thiès li fi nekk ci jàngkat ni ñu tool bari nañ te mën ko lool nga ni Cheikh bu Joom mu ñàkk soloñ mii moo ñu ci doy yàlla bu ma tas seen yaakaar ci darajay Muhammadu Rasulullah kon ñu nuyu leen rek ñun Njaasaan nii lañuy ñuy nuyoo la ilaha illa la ilaha illa الماء والخمر دفلني لا إله إلا لا لا إله yaay borom doole yaay borom doole borom doole jeey anta malikul jabar la ilaha borom yërmande ji borom yërmande ji borom yërmande ji borom yërmande ji يا رحمن يا رحيم لا إله إلا الله yaay borom nguur gi yaay borom nguur gi yaay borom nguur gi yaay borom nguur geey anta malikul muluk la ilaha illa allah waaw kooku mooy sunu jiite yaayu amindooy ak Pape Dieng ku bëgg yàlla defal nii la ilaha ilaha illallah waa ngent damay laaj ana ñi bëgg yàlla géej gi koy sabal yàlla dee leen ko sabal bu ngeen sabalul jën yi koy sabal arasho ngi sabal kursiyo ngi sabal kaaba ga ngi sabal bayti maamu sabal illa yusabbihu bihamdihi loo gis mi ngi sabbal yàlla xataa bant bi nga xam ni dafa dem ba maxe mbaa mu fënëx soo ko boo xamee mu génne suuf boo ko yëgee ak boo ko yëgul bant baa ngay sabbal yàlla xanaa kay da ngaa nekk insan daif comme man moo tax mënoo dégg sabbal ga ku bëgg sa borom defal nii soo baree la koy sabbal ci kaw suuf dinañu tudd sa tur ci kaw asamaan soo baree nga saxoo di ko sabbal dinañu tudd sa tur ca àjjana ku bëgg a bokk ci ñooñu defal nii yéen ñëpp kaay leen nu waxandoo are kay la ilaha illa la allah allah la ilaha illa la الله دبلني لا واحد لا إله إلا الله mel ni am na solo ana ñi d'accord ni rasulullah moo leen gën ana ñi d'accord ni yonent bi moo leen gën ana ñi d'accord ni yaayam a gën seen yaay ana ñi d'accord ni baayam a gën seen baay ana ñi d'accord ni ay maamam a gën seen maam ana ñi d'accord ni moo gën seen sëriñ ana bi awla bil mu'minina min anfusihim moo la war a gënal sax sa bopp rasulullah Thank you. na suuf sa teey na nee na tudd na Tayba tudd na Yasrib waaye nee na yàlla borom asamaan mu kawe bi moo ko tuddee madinatul munawara hiya taybatun taaba li tibi usuliha wa madinatan rabbu samma samma ndeysaan خديجة بنت خويلد أم دي كنت تاكوزانو يننتبي خديجة سكنت بالقلب قال إلا الدهر لم يوزك الله في دارين لا تكمي على أبي وعلى أجمعين أجمعين سلام ربنا takkal sa baay loolu aayu kuy doom ju baax rek xam na lu am nit sagal sa baay loolu aayu ñaanal yàlla tawféex ak sutura ak xéewal li ñu gën a neex ci yow mooy da nga déggoog mag ñi déggoog kër yi nga kër gi nga ne mag ñi ñépp nga am seen ngërëm te mag ñi ko am seen ngërëm loo jàpp yàlla jàpp ci gis nga sëñ Abdul Aziz Amin li tax yàlla dooleel ko ba lu mu jéem man ko dépense ak lu ne mooy dafa déggoog mag ñi ku déggoog mag ñi loo bëgg a def def kon ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci sunu quartier bi ñëw nga fi miraaran ñëw nga ci buntu jàkk ñi ñëw nga fii ñëwaat fi kon ñu ngi lay ñaanal yàlla yal na nga fi yàgg ñëw te boo fi ñëwee ku la déglu yal na jariñ dama la wax léegi ni kàllaama yi ngay wax wolof la ku déggul wolof amu fi te ku toog ci sa jotaay jariñu fa te boo fa jógee danga fa jële mbégte te loolu rek lañu soxla ci àddina beneen bi mooy galanu tabala ñu bëri xamuñu ko tabala moo tax ci jamonoy lay aman na moo tax Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani fokk ko dugal ko ci biir tariqaam tabala boo dóoree galan bi seytaane day daw kemtulaayu dégg-déggam seytaane dootu fa jege moo tax bu ñuy dóor tabala ci sa biir dënn lay yëngu waaye ñu bari xamuñu ko moo tax bu jaan musaa na màtt nit soo xamee ñu ngi woo luggukat yi te jaan ji laxasu man na cee am dañuy dóor tabala bu ñu dóoree tabala la ca laxasu laqar ci ko jaani kese nekk fa waaye ñu bari xamuñu ko mag ñi ak wàlli yàlla yi lu ñu def rek am na lu tax ñu def ko yow mi ko xamul nag lu la neex nga wax Seydil man Mansour di bàyyi xalifa bii toog soxnaam moom ma ko nett li muy soxna alimatu si moo uf sama doom yépp sof sof ñu ndaw ñi fii ci égalon nee na bal mi dafa toog ñuy xalam di xalam di xalam mu téen ba yàgg bët yi taa ñu ni ko sëñ Mansoor dafa mel ni day xalam gi daf laa dugg dafa neex mu ne xalam gi dafa am fu ma dugal mu ni fi ma dugal mooy cunkóor gi nga xam ni moom lañ ci takk di ko xalamee mu ni cunkóor gi dee na lu dee la bant bi lu dee la leget gi lu dee la ndéem yàlla moo fab yu dee man cee créer lu neex ba muy dugg ci xolub doomu aadama kon àjjana lan moo fa ne moom foofu la ko déggee kon nag tabala yi ngeen xam ni danga ko fiy dóor moo nodd da yam nodd saa boo nee allahu akbar seytaane fëx tabala tam saa bu ko dóoree seytaane fëx waaye ñu bari xamuñu ko nag yeah. kanam ñu di la décoré loota ba nuy def trois cent cinquante la woon nga yor ko nuy alamaan ñaar fukk nga dini ko yoral ba nuy servir ay junni ay million yaa njëkk a def sees yaa njëkk a def ay bool yaa njëkk a def baas yaa nu njëkk a boole ba pare bari woo wax réewoo fuuyoo lu nu wax nga ànd ceeg ñun ñaar kon jaraakoon ñaar ñi ngi lay jox loo méritoon jox bii nu la koy jox muy première fois yàlla ba mu nekk sa dernière fois yàlla nan la ko jox ay at yu bëri yu ànd ak jàmm tubaarkàlla yàlla nan dund ba lay décoré bie màkka ànd suqali ngent nag moo tax yu amindoo maa ko ko tudde ndax tubaarkàlla bi ngay dem da koo jox lee ngay jaay ni damaa sori mënatuma koo yor waaye maa ngi ci biir loolu lu lu guddi guddi sama ginnaaw kër ga dëkk da ngay ñëw yaa koy njëkk yaa koy mujj di leen natt da ngay sam njaay ñëw ni damaa na mën a tuddi maas kon yal na yàlla guddal sa fan tàccu leen loo te njaay ana ñu ànd moom ana ñu ànd ak loo ñi ànd ak Rote Ndiaye ñi ànd ak Rote Ndiaye tubaarkalla tey dañuy di ko màggal duñ ko boole lu dul fi taf fi taf koy boole kon macha allah Rote jox la kado bi ni lay jox tubaarkalla kar macha allah jar nga ko Ndiaye nga toog sa càmmiñ muy nit ku baax di sunu jëkkër baax laaw la Mati Seck nag moo lay jox ko dabi pour Babacar jox ko ko. Eh, ci Babacar nee na ñaari junni la may jox ci Babacar na naa insisté ci Babacar kon Babacar a koy jox ko sëñ kii Babacar la yaakaar yow nga yaakaar sëñ Fallou macha allah kon bi du asaar. jox ma ko ni mu bëgg ma ne ko Andreas na ko la ba te dara ñaaw tubaar kàlla Ndiaye tubaar kàlla tubaar kàlla Ndiaye tubaar kàlla kër Babacar la ko jox jox ko yal na yàgg yal na yàgg tubaar kàlla beneen kado bi la joxaat ngi noonu fekk na la ci biir groupe fonk seen groupe bu bu ah, defar ñebe ñoo am jom. ñoo jom yal na la ji. yal na mel ni nu ko galax ci yow. sërë pot waaye maa bëgg maa bëgg groupe. ànd suqali ngeen mbootaay amandoo yi maa bëgg lii. ci ki ma jëm nag. goro jóg noonu may la xaalis li nga wax ci amindooy fi nga kuma fi nga yem foofu la ñuy commencé waaye ku ànd ak amindooy tàllalal leen seen loxo nu xool ku ànd ak amindooy yaayi jaboot yi tàllal leen seeni loxo nu xool yàgg a baax li nga wax ci amindooy ñii dëkk ak moom a ko wan a wax këram ga laf cat macha ñam fa jurul yor leen fa moo ëpp ñam fa jur këram la ñuy nekk bokk ko loota njaay mu baax mi joxe lenge ba tey chaque dimanche fa la nii ne amindoo yi ndox mi tàccu leen ki ni nekk ci këram chaque dimanche mu ubbi léppam tubaarkàlla yaayi jaboot yi tey ji du nu xamoon lii ba ñu nga dëkkal dikk dina neex tàccu leen loolu neex na nee na ñu ngi ciy dolliwaat beneen cadeau buñ koy joxaat yal na la jig yal na sedd guy ci barke nabil Moustapha ami ndooy nag Pape Doumbouya booleel na ko ci ñaari terrain tàccu leen loolu waaye Pape Doumbouya jox na ko ñaari terrain jox na ko Marisar Gorsi nee na Marisar nga ñëw ma jox la kayit yi ak signature yëpp muy ñaari kër yin la décoré ndooy laf cat waa Pape Dumba yaa sama ji du ko waxee def ko tubaarkàlla def na ko ba pare kayit yaa ngee góor su si ca yàqu ci dara man ba ma ko njëkkee dégg muy làkk dama ni mënta làkk day jàng Mari Sarr duy góor amindooy ñan la bokkal palaat bi taabalam ji mati seek kor Babacar laf cat macha allah nee na ma insisté ci kor Babacar du may tudd Babacar damay am leneen lu ma ciy sentir lu dul Babacar mi la jël tur wi laa bëgg tubaarkàlla nu lay dénk sunu kees on subila mina seytaan rajim laalu ko da koo ëf Mati Seck tubaarkàlla noonu la jox sunu xaalis doo ko génnee nin la koy joxe noonu lay mel day xeeñ ab denc nga seq koo kan ki lay tàmpaneel yande ak yaasin gay sama waa ji nga xam ne heure bu déggee géwal géer gu may géwalam paasu màkk mu woo ma ni ma dinaa la ko defal yàlla na la yàlla may woo wërsëg nga seq koo kan kollee macha allah ngeen nii bindal ca du leen fay dara dina dencal sunu xaalis seex bu ñii at mu ne laf cet macha allah dañuy verser ay miliyon yu bëri ca dun ci laaj benn intérêt din ko dencal ci nin ko bëggee du nu soxlaa lebal nu ko ci nin ko bëggee di ko fayee ci anam bu nu neex ba kara nuy toj kees gi loolu yombul ñu ngi leen di ñaana lii ngeen di def yal na yàgg yal nañ ko yàgg taxawee yal nañ dund ba ay biya màkk nu ko ciy tiiree ca bis bi ngeen di njëkk a tiire nag xam naa du ngeen génnee amindoo yeeg lool te ba leen fàtte seen géwal ndax géwal bi dafa war a teel a seddu amindoo yi na mi ngi gërëm waa mbootaay gi nee na ñoom lay njëkk a gërëm amindoo yi nee na melul neen nee amul dara nee na gën a kenn nee na yàlla xanaa moo bindi pour mu jiitalee nee na moom mii mu nangu ko nee na mu xam ne dogalu sunu borom la nee na lépp lu waay def nee gis na ko nee ñépp la boole jur nee ñépp la jaboote nee na amu ci benn xaaj ak seen nee na lu mu leen yéene ci lu bon yal na ci jiitu di dee lu baax yal nañ ko bopp nee na xolam lu mu ci yéene doomu aadama du lu baax nee na yal na ci jiitu moom nee na lu bari lu ñu bari mënunoo wax loolu ndooy kon nee na mati mii ak awa njaay mii ak yaasin kolle yande faal nee na mënu leen a fay nee na yéen nekk ci kees gi nee na jox ko cër nee na yenn saa yi du waxee lu jubul sax neena dinañ ko defar ba mu jub nee na ba mu xam ne lii mu def jaaduwul waaye kenn du ci jàkkaarloog ma wax ko ko nee na mi ngi leen di ñaanal nee na ñaan gi mu leen di ñaana nee na yàlla na Seydina Mouhamed teg ci yéen loxo nee na ci barke Seydina Mouhamed nee na ñépp la ko ñaanal nee na ñoom tànday gay ak ñoom sama goro yi toog nee na ñàkkul benn yaay nee na du dara xëy këram balaa mbokkam yee ñëw nee na yéen koy taxaw ak waa looyee nee na ba ci taan Xadi Njaay nee na mi ngi sant yàlla kon nee na li mu bëgg a wax mënu koo xolam fees na nee na mi ngi leen di ñaanal ci yàlla nee li mu leen yéene yàlla na ci jiitu nee na di ñaanal seex bu baax mi nee na rakkam nga yàgg rakkam a doon ànd nee kon nee na xam nga lépp nee na li mu yéene paab rek la la yéene nee na yaa xam fa nga bëgg a yegg yal na la fa sunu boroom eggale nee na sagal nga ko nee na jàppale nga ko nee na mi ngi lay ñaanal bu baax nee na paab dumb yaa nag li mu wax léegi rek nee na xamul paab dumb yaa da koo dégg rek nu koy wax nee na sofiseet wii ni ko doo jaar ci faat endo di nga ko gis nee na ba muy ñëkk a dem nee na moom Maguette Ndiaye góor see la àndal nee na fekk ko fa nee na mu fekk fa Lamine Wade nee na taxul mu bàyyi nee na mu demaat fekk ko fa Faat Bintu ñëw fi nee na mu koy topp ba tegal ko boppam bët nee na di ca wax ba mu ñëw këram nee yàlla moo xam nee na xamu ko woon nee mu gis Pape Dumbuya rek bëgg ko nee lu ko waay wax sax da koy metti nee na yàlla rek la nee mi ngi ñaan Pape Dumb yaay yàlla teleem bii ak lu mu bëgg yàlla moo ko xam yàlla na ko sunu borom defal nee na mi ngi ñaanal Mari Sarr mii bu baax nee na yàqoo ci dara nee na ñaanal na ñëpp nee na beral na ndey dikkeem bii taxaw di wax lu baax ngërëm muy man macha allah laaw la cat baal du àq wax ji yàgg na màgget lal naa ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك